yow lépp lu la laal rek day laal Sénégal day laal umma bi yépp day laal àdduna bi yëpp ma waral ba mu xewee rek laa yëkkati téléphone ñu jokkoo si waaye dara mënuloon remplacer samay tànk fii sa wet euh, feddale la sunu taalibe feddale la doomu bi nga xam ne def nañu ko te nga nekk jur si ñun Euh, kon nag sa wayjur moom lu ko laal lu ne laal na la euh, loolu mooy moo waral tànk yi di tànku njaal waaye di tànk feddale ab taalibe ak feddale euh, kilifteef bi nga xam ne jox nañ la ko ba mat sëkk ak yaakaar bi nga xam ni am nañ ko ci yow te nga wane ko ba mat sëkk ci diine ji wane ko ci yoon wi wane ko ci réew mi dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne mooy boroom may mu may la yokk say fan yokk la wér nga continuer naal yi nga naalal suñ Touba te lépp lu si sunu taxawaay ñu def ko sawet ba mat sëkk eh, di ko jaal mbokk yëpp te di ñaan yàlla lu mel ni géej fi lool voilà loolu moo doon tànk yi mënuloon ñàkk nag wax nga ma ko waaye fa rek ma ñëw ba fii ci turu sëriñ bi mu ngi lay delluwaat am nuyoo ci tànk yi nga xam ne moo lay yëkkati ci xew-xew bi nga xam ne xew na ci biirum njabootam mu wax ne mu ngi la koy dellowaat bu baax ndax xam na ne yaa moom yéen ko bokk ndax ci biir njaboot gi nga bokk kon moo nga ko jaal sa bopp wala nga siyaare kon nag sëriñ bi nee na eh, lim la waxoon léegi rek mooy. yeesalaat cantam ak ngir moom ci yow ndax nee na ba nga yëkkatee sa téléphone siyaare ko ko rek nee na doy na sëkk boo yónnee woon kenn doy na ndax xam na yan bi ak responsabilité bi te xam na xataayu réew mi kon boo ñëwutoon it nee du ci yàq dara du ci yokk dara waaye nag xër gi nga xër ci moom ak fonk gi nga ko fonk moo tax lépp lu xew ci moom rek boo soñoon kenn du la ci doy lu sa jëm nee na loolu nag ni mu toll ci moom yëg na ko bu baax ndax kii fi bàyyi ko. sëriñ bi eh, seere na ko ngërëmam ci ak baaxam ak ragal yàlla ak maandoom kon nag boo yëkkatee say kàddu ñëw ci moom nee na cant ak ngërëm rek la lay yeesalaat di la ñaanal bu baax waxaat na may léegi ci biir néeg bi it wax ne nee na eh, sa digg moom lam ci jàppoon dara du ko wàññi dara du ko dindi nee na fa mu la dénkaane woon itam foofu la dénkaane ba na gëne loolu nag kon yaakaar naa jëru dolli wax dara ñu ngi lay santaal bu baax di la gërëm ndax xam na taxawaay bi nga koy taxawe ak jàppale gi nga koy jàppale ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi ndax moom amul lu ma yittee taalib yi ak dëkk bi yéeg na ne nag lépp loo ci dégg dañ ci def ba def ci loo ci mënut kon nag loolu mi ngi lay bàyyi ki nga xam ne moo tax nga di ko jëf yàlla na la fayal boppam ci barke Sëriñ Tuubaa